au métier de l'économie suñu école bi nga xamante ni fofu lañuy tagaté ndaw ñi ba nopi daal di leen di dugal ci ay bërëb ñu daal di tàggatu Cheikh Ahmadou Bamba Mboup moom moko ko di initier mbokk yi yi nga xamante ni sérigraphie lañu bëgg mën nañ leen défal formation durée 15 jours informatique bureautique itamit am nañu ko pour une durée 2 mois formation certifiée agriculture élevage informatique entrepreneuriat restauration sérigraphie mécanique auto gestion de caisse infographie Maraisage Il na ci yoo xamante ni durée bi 3 mois la yi 1 mois yi 15 jours am na sax 5 jours te li ci gën a neex mooy am nga attestation boo xamante ni dinañ la délivrer bis boo paree sa formation ba pare nag ñu daal di lay teg ci benn bërëb boo mbokk yi attention nombre de places limité ouverture des inscriptions c'est à partir du 13 février mu mel ni tàmbali na ñi ngi Parcelles unité 22 villa numéro 244 téléphone 33 857 50 19 77 460 37 37 institut bi dimbali ndaw ngir ñu am xëy. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. ñu def ko nii bu doon seen doom du la neex ah? ñu jàpp ko def ko man bu ma ko déggee mu loolu yàlla dama xam. ndax xamuma lii mooy lan ndax man xam naa ne moom buñ ko man damaa foogoon ne sax dañ ko rey wóor na yàlla moo tax damaa xam ndax lii man damay xamul mooy lan ndax Pape Abdoulaye Touré kër gi sax violent wu fi bay violent ci mbedd mi Pape Abdoulaye Touré du toj du taal du yàq du def dara loo xamante ne man ngeen koo buut baaraam moom rus ñoo def loo xamante ni bu ko nit gisee day sëgg ah ñu jàpp ko def ko def yu ñu ñaaw ba pare yóbbu ko tëj ko ci kaso man dama ko daan seeti bu dëkk dama ko daan dem di ko seet mais léegi mënatuma ko teg bët. kañ la ko doon dem seeti mooy jamono yi nga xam ne du dundoon na torture bi ba ñu jël ko yóbbu ko pavillon spécial daan nga ko gis ba ñu tabax loxo beeg tànk bi. waaw jamono jooju daan naa ko gis maag bàjjanam ñu nga fa daan ànd jamono jooju moom daan naa ko gis boobu nañu damm loxo bi damm tànk bi toj bopp bi. léegi nag man bu ma fa dem man damaa waaru sax bu ma ko gisee dama dama ne lii est ce que doomu aadama nga dina tiim moroomu doomu aadama di ko def lii ah damaa waaru ah léegi nag jamono jooju ñun daan nañ ko gis di ko nemmee ko sax sama xel xawal xaw daal mais léegi dama ko mënatuma tëj jot mënatuma koo jot téléphone mënatu xamuma ci moom dara te lu nekk laa ciy dégg dafa dafa dafa day def grève de la waaye lekkul naa ne mu ngi jeex tàkk Pape Abdoulaye Touré dafa feebar. ñaata fan nga ko gëj a di teg ba bët ki nga xam ne muy Pa Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré depuis mu commencé grève de la faim léegi tegu ma ko bët. bu ma déggee sa biir kàddu fukki fan ak juróom lu teg mënoo teg bët sa doom. fukki fan ak juróom ak lu teg mënumaa teg bët sama doom te dem naa fa ne leen génneel leen ma sama doom ma waxtaan ak moom comme day def grève de la faim ndax mën naa yaayam xëj na sax man mën naa seet ci man ba bàyyi waaye dañu ne ma mënoo koo gis ma yóbbul ko ay lekk ñu ne ma dudd ko. dañ noonu laa wàññeekoo ak lekk yeeg ah dafa mel ne loolu rafet na ci doomu jàmbur boo xamante ne yéen yéen a ko gaañ ba pare tooñ ko ba pare yóbbu ko ci kaso bi tëj ko. yaay booy ñu ngi jéggalu ci kàddu gi di jéggalu mbokk internet yi ñuy suivre suñu plateforme yi di wax ne ñu ngi toog ak ba léegi ki nga xam ne muy yaayu Pape Abdoulaye Touré yaay kii di Pape Abdoulaye Touré ba mu defee grève de la faim dañoo jot ci ay xibaar dañ ko yóbbu fi nga xam ne mu hôpital principal def ko réanimation même ba nga demee hôpital principal tamit ndax jot nga fa am accès. hôpital principal yan démarche nga jot ba mënoo woon jot ki nga xam ne muy euh, Pape Abdoulaye Touré nga gis ko. mu bañ na ma fii nekkul fii nag wax ma retourné la daan teg ñu ngi fii waaye daal daal mënu ma kaa gis lañ wax wax mënu ma kaa gis loolu laa wàññee ko ndax ba tey gisuma fu ma toll maa ngi xalaat ndax sama doom ji deewul man.

ñi nga xam ne ñooy abonné ñoo ëpp foofu ñi nga xam ne ñooy aimé kon dee leen seetaan am na solo kon ñu ngi lay topp baax na mais dee leen aimé vidéo yi ndax mooy sécuriser li nga xam ne moom mooy live yi ñuy def mooy sécuriser aussi scène bi c'est très important kon dee leen aimé yi mais dee leen abonné aussi gratuite la lu simple la am na benn gars moo kon booy nooy def ba da ngay fay wala man kon non gratuite la am na téléphone yoo xam ne en rouge lañ koy bind à côté am na téléphone yoo xam ne en noir lañ koy bind nga laal ko rek abonné nga wala nga sax sa dom la parce que maman yi dañuy sétane bu baax ñu ngi sant suñu yaay ak suñu papa yi parce que gis nañ âge bép mo ñuy c'est le bon dal c'est le bon international la donc ñuy gërëmaat suñu waajur yi di gëna a ndaw ñi ñu gëna a seen waajur yi gën leen a seen waajur yi gën leen a doyloowaat yalla suñu borom waye gën leen a ci yalla suñu borom waye jël leen lepp ngeen jël seen ñu doon seen je vous parle en connaissance de cause ñaanu waajur gàllaaj bu dul toj la sëriñ Touba Xaadimu Rasuul waa ji dafa ne ko woon ndax nit bu amul ñaanu waajur dina am ñaanu wàlliwu mu ne ko ku amul ñaanu waajur doo dajeeg wàlliwu ba mu lay ñaanal <laughs> ci sama waa ji naxul naxewul waaw naxul naxewul Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu moom rek la ñu bëgg suñu xol e, maanaam mu nekk lu am solo lu may bëgg a jàngal jeunesse bi ñu gën a fonkaat seen waajur yi ñu gëna a fonkaat seen waajur gëna doylo wat yalla c'est très important ndax li tax mako koy wax sax dafa am ben vidéo mu leen di bëgg tégal tegal ngeen gis ni Pape Abdoulaye Touré torture ñu ko doon def tay dem na ba way juróom bu jigéen di tour ay xéwal mënu ko tek bëtt gis nga heure bo nekké ci ay fitna ci ngay gëna xam kan moy dëgg-dëgg way jur surtout nak way jur wu jigen amana Pape Abdoulaye Touré amoon na sëriñ amaana amon na fu mu bokk amaana amon na keur diine bu muy bu mu bok nan mom lay top nan ñun diw sëriñ diw lañu gëm ñe gis nga bi mu nekké ci ay xat-xat gis nga bi mu nekké ci ay jafe jafé yalla suñu borom ay woy ndax ñu gëna fonkat suñu suñuy gëna fonkat suñu mbokk it mbokk mbokk moy ki la yàlla booleel ci deret dafa am solo ndax kep ko top ba mu tax la baye say mbokk bis dina ñew muy waxtane ki mbokam ne la xaar ma ci buntu bi kon dama bëgg ñu gëna fonkat suñu wëjur gëna fonkat suñu mbokk donc nag bo kat bi neena na ku ray sey non sey mbokk jeex waye nak wax jooju ak e, règle amna règle bo gis amna exception kon nañu gëna fonkat suñu wëjur gëna fonkat suñu mbokk gëna fonkat suñu dekkando gëna fonkat képp ko xamanteni ni nii suñu naqar naqaram la ñu baña top ko xamanteni ni ñun ñoko top waye mom bu ñu dee yëgul bu ñu xiifee yëgul bu ñu jaaxlee yëgul ñuy tiitaroo wala di gërëm ku ñu defalul dara loolu naafiq la te ñun Sénégal dañ koy def maa ngi def gis nag baay Jawrin Ndiassé di wax ni ndaw ñi dañu faible moralement ma gis jeune yu bëri ñu jël ko def ko ay statut ñi di ko def ay challenge gis nga oppresseur bi ñu jàkkaar lool faible moralement danger la ci ñun c'est pas le moment d'être faible moralement si on est faible moralement ñun nëbb ko man de je préfère pleurer la nuit et rire le jour je préfère man Kona pleurer la nuit parce que borom xol la li xew ci rew mi dara neexuma fi li may daal dara neexuma ci waye kenn du ko gis sama kanam du ma ko wan mukk sama non du ma wan mukk sama kanam sama noonu li Serigne Touba khadim rasoul waxoon ne Touba bi duñu xam li ma bëgg duñu xam sama naqar ki la bëgg lor ta Macky Sall taxawaay bobu la taxaw ak ñun def ñu bëgg a bëgg ñu faagaagal bëgg ñu lor bëgg ñu toroxal di def campagne de manam di ñu titel depuis le début ñu naan day ñàngal day fas kanamam ñun suñu demee ba six mois de ñu Nous on est faible Nous nangu on est faible non nous tous on est mal mais on doit pas être faible moralement parce que sans le moral mënuñu gagner combat bi sans moral de fer mental de fer mënuñu gagner combat Et la victoire est tellement proche kon gars nous nañu bañ a abandonné nous ñun ñu en liberté Nous ne pouvons pas moralement mais ñu nekk ci kaso bi lan lañ leen di wax ñu tëdd ci bàmmeel yi lan leen di ni wax te ñooñu ñu nag ñoom ñoo bokkoon combat bi ñoo amaana sax ñun li ñu def ñoom defuñu ko ci combat bi li ñu li ñu jaayante wala li ñu manifester ñoom sax amaana manifester wuñ ko ñu ci bëri dañ leen a jàpp innocent fekk leen ñuy jaay ñi fekk leen ñuy dox ñi fekk bracelet bracelet seen seen sac jàpp leen ñii ñu fekk leen ñu ànd ak Ousmane Sonko comme sama papa Ibrahima Gueye nay leer ak ñeneen ak ñeneen ku lim doo matal ku ma fàtte nag ma Nous ci bi si on est faible moralement ba diko woné quel serait leur devenir ñi nga ñun ñoo combat bi on serait lâche di on est faible moralement si on est faible si on est mal si on a mal on a tellement mal suñu ay nit lañ mais dañoo affronter lool yëpp on doit être très fort. on doit être très très fort que jamais plus fort que jamais lu ñu gënoon a fort tey lañ ko gën a war a fort ah ngeen gën a fonkaat waajur yi nekk ci jàmm naan sëriñ diw laa yaakaar nekk ci jàmm naan diw moo moom laay topp moo yor samay mbir boo nekkee ci ay xat-xat allahu subhanahu wa taala ak say waajur dong ngay gis nañ dem seetaan yaayu mm, Pape Abdoulaye Touré xam naa ñi seen xol tooy dinañ jooy ñu dellusiwaat gis ngeen gars sunu maman boobu li mu wax moo tax su ma gisee des journalistes toog ci télé au lieu wax injustice bii au lieu ñu wax démocratie Sénégal maanaam dictature bi nga xam ne dafa dafay ñoqali dignité humaine amatul amatul valeur nit amatul valeur xam nga lu am valeur mooy ànd ak le président Macky Sall loolu mooy valeur léegi Sénégal ay nit war a toog fekke démb fekkee tey war a wax ni te yàlla tax ne lii dee ay li yéwén bu dëgg te mosu fee am c'est la première fois que am ci au Sénégal ñu jàpp ay nit di leen torturer di leen que di leen rey nga fekke Des fekke tey di journaliste wala ngay chroniqueur wala ngay sëriñ wala loo fait a doon nga toog des ci wala sax boo demee ba yëkkati sa kàddu yaa ngi des ci ñi nga de ci des bi di def grève de la faim nekk ci kaso bi di résister ndax liñ leen metti na au lieu nga wax ci ki leen lu dul da leen fanaan naan ñukk naan waaw dañoo war a gore dañoo war a kii yéenay naafeq yéen a bon moo tax du ma leen baal duma leen baal léegi Sénégal dañuy gis maanaam même manifestation da gis ñu reykatu nit yi ñu ngi rey nit yi de mais kenn du ne ñi ñuy rey nañu bàyyi rey xam nga la ñu wax manifeste bi yàq beeg yooyu nañ ko bàyyi mais malo net kon lii mooy doomu aadama valeur dignité doomu aadama lañ bafoué léegi. di ko toroxal te nak juma jàkka magal gàmm daayira loolu que dafa fekk doomu aadama yi ne ci jam masque yi rafet dem makka dem fépp dafa fekk doomu aadama yi ne ci jam. moy la liberté des personnes la sécurité des personnes la vie des gens mu être en sécurité muy bakkan doomu adama yalla nee ku boom ben bakkan mu ngi mel nga màbb nga askan ñuy boom ay bakkan biir Sénégal les gens n'en parlent pas ñuy boom ay jeunes di leen toroxal di leen dóor di leen ray seen i wayjur toog imaginel doomu aadama ban circonstance ak ban droit ban constitution wala ban loi moom may doomu aadama ne ci ay loxo ay mbokkam mënuñu koo gis Sénégal moo fi am dañ lay jàpp dóor la duma la tëj la say avocat duñ la gis say mbokk duñ la gis moo dal Cheikh Bara modèle dal Pape Abdoulaye modèle dal plusieurs personnes les gens yi nga xamné tay la presse ak journalisme wala beaucoup ko am kaddu nga xamné Yalla yàlla mayul ñëpp si ce n'était pas l'internet la magie de la technologie kon a mën nek de nulle part di éveiller les consciences ñun fan lañ jëm kon néew doole yi fan lañ jëm kon ñu amul baat fan lañ jëm les sans voix fan lañ jëm ñi ñi toroxal fan lañ jëm TFM du ko wax Sen TV du ko wax au lieu mu wax ko ma ngay nekk ci ay détails ma ngay nekk ci ñu ñu toroxal tër leen di leen rendi ñu naan leen bu leen wéqu ndax bu ngeen wéqoo dañ naan du ngeen gor loolu lañ bëgg a dugal ci bopp askan wi seen on en a marre de cette situation mais on doit pas faible les gars moralement on doit être fort sunu noonu war te gis sunuy rongoñ sunu noon mel leen ni Ousmane Sonko mu sell mi lan lañ ko tegul mës ngeen a gis ay noonam gis rongoñam nee na Macky Sall daf may rey rek waaye du ma doyadi si kanamam nee na Macky Sall sama noon du ma mës a faible ci kanamam te loolu daf ko donn ci yonent yi daf koo donn ci mag ñu baax ñi kon ñun waruñoo faible moralement gars yi donte Baye Ndiassé wax na dëgg ay nit rek lañ mais waruñoo faible ba suñuy noon mais yow ki nga xam ni ku la ëpp doole toog sa kaw di la duma wàcc ma yaa ngi may gaañ bu tax mu baal la Macky il veut nous il veut nous il veut nous écraser il veut nous éliminer pour rester dans le pouvoir kon kooku boo yërëmtalu mais da nga koy da nga koy may courage ku la yërëm nga yërëmtalu si kanamam pour mu am effet mais koo xamante ni lan na xari moo la ko teg kanam la jëm du bàyyi mukk fekk amul lu mu bëgg donte nag am nañu fi toog nekk ay kilifa nee nañ Sénégal mu ngi ci jàmm waaw man de mënoon naa wax rek man maa ci jàmm mag ñi ma àndal. wala mag mag sama kuréel ñu ngi ci jàmm ku ay nit yaakaar benn doomu aadama bu nekkee ci fitna askan wi yëpp a ko war a yëg comme keroog tey France nekkuñu ay jullit de ñun nee nañ ñooy jullit ñi <laughs> ñun ñoo baax benn jeune lañ faray soulèvement populaire papa maire yaay papa ñëpp jug te nee nañ ñoom gëmuñu yàlla ñun ñoo ne ñun ñoo leen gën a baax ñun nee nañ jouru àllaaxira ñun ñooy dugg ñoom dañuy xaar. ñoon tubaab yi benn doomu bakkanu doomu France lañu rey tubaab yep jóg maire pa ne déedéet ñun nag nee nañ Sénégal on a tué 30 et quelques personnes ñii ñu sànni leen ci géej gi ñu tëj leen ci kaso bi injustement ñii ñu sa yàq kenn sax mais ba tey ñenn ci ñu nee réew mu ngi ci tout va bien donc kon ki nga xam ni sa naqar du naqaram sa bànneex du bànneexam kooku ban nan la la matee kilifa nanu fonkaat suñu jur yi nga xam ne suñu naqar lu nu mën a mel fu nu mën a nekk ñu fekk ñu fa nan leen fonkaat te doyloo yàlla kennal ko xam ni yàlla képp moo mën ci ñun dara yàlla rek mooy décider ci suñuy dund te ku wéeru ci yàlla wéeru nga ci ku jara wéeru weeru nga ci fi nga war a wéeru ndax koo xam ne yow ak moom ak sa waajur wu jigéen sa biru nday la tambalé sax avant ngay judd sax way sa biru nday rek xolal fofu yak yalla jalla jalaalu kamal da nga xam kenn xamoo kona xamo pati xamo demba yow yalla sa nday ak sa bàyyi ci jëndum ordonnance mi yalla mi la fekkon fofu dila sam dila sam ba nga ne putt judd nga nek ab lire mu dila sam dila sam ba nga ne kett ne jonn xamé màmmee bi jël sa dund gogu jox ko kenen ku dul yalla ya goradi di ñak xam ya ñak experience.

<laughs> donc moo tax ma leen di ñaanaat les gars on on doit être mentalement physiquement moralement bu ñu nekk ci kaso bi gën a gore bu ñu ñu tëdd ci bàmmeel yi gën a gore kon nag gars man lii laa amoon lu ma leen di wax di ñaan sunu yaay yi aussi ñu xam ni toog di jooy baax na mais mbootaay yi ci réew mi yaay yi papa yi grand place yi baax na mais jug leen. jug leen ngeen ànd ak seen doom yi ñu def une soulèvement populaire ñu jug billaahi bu ñu jugandoowee ñun ñëpp takk ay morso yu xonq génnandoo ci buntu kër yi kenn ku ne génn taxaw tàllal say morso yu xonk Sénégal yëpp di xonk kenn du leen tirer lacrymogène kenn du leen rey te dinañ am lu ñu bëgg suñu mbokk maliens yi ko def gënuñ ñu sunu mbokk yeneen yi ko def bëriwuñu gënuñ ñu nañu génn bàyyi yàlla baax na beeg ay nañ ko bàyyeek yàlla yàlla du la defal loo mënal sa bopp danga ciy nekk yàlla fekk la ci yalla lolé duko sétane setan setan na du raw sayidina ousmane mi di turundo ousmane sonko mu sel mi alquran amna parti bo xamni rouge gamu rouge dañ ko fekk muy muy jang alquranu yalla bi ñu debbax ko paka deret de sang sang touru ci alquranu karim yalla mi setan lolou yalla mo fi mo fi nek nanu gor lu te bañ ñu résister and ak sunu doomi jup ne li dafa doy lolou rek moy tax mu doy waye tok di joy di lamantewu ak naan sëriñ diw wala mag diw lii dafa leer ñi ñu war a yaakaar yépp ñii nee nañ yëguñu ñii nee nañ jàmm a ngi xew ci réew mi kon nag koo xamante ni yaa ngi koy yaakaar te wax dëgg yàlla feesewul maanaam wala boog xëy na lottu na ci fekk maanaam ci génne la ci xat-xat yi nga nekk yow yaa war a jël sa destin à deux mains yow yaa war a jël sa courage à deux mains nga taxaw nga siggi comme ñu ko ñoom Martin Luther King ay Harvard ay nit ñoo fi jaar xeex kon nag xeex du fi mës a jug fekk nootaange mu ngi fi te nag Sénégal ñu xam ko ñu wax ko ak ñu ragal kaa wax ñu dëgg ñu ñeme ko ak ñu bañ ko ñeme moo fi am mais Sénégal ak njaam moo fi am liberté amu fi dëgg amu fi justice amu fi benn tyran moo fi nekk di jaay doole di lor di toroxal di rey lii moo am ku ko ñeme wax moo am ku ko ñemewul wax des choses. di doole yi ñuy toroxal nga di leen yedd ndax yedd yërëm a ko gën kon nag ngi jot une information am na ay recruter ci koñ yi di fay chaque mois pour ñuy wax turu résistant yi wala ku bokk Pastef ku dëkk si koñ ñu wax sa des ñu ñëw dañ lay fëgg la lii di am ci am réew ñuy jàpp ay gor ay honnête sénégalais ay jigéen ay gor di toroxal par leur conviction par leur appartenance politique mais lii c'est grave kon nag gars yi seul le combat libère lii daal laa ne woon naa leen ko wax su ma juumee ngeen baal ma mais le meilleur reste à venir jaa ngeen jëf bu leen fàtte aimer et partager.